vote intelligent si vous êtes disqualifié, pour le second tour vous êtes prêt à voter pour le candidat Diomaye non ça c'est pas un problème qui va se poser d'abord ça, se posera pas comme ça s'il y a quelqu'un qui va aller au deuxième tour ma conviction profonde c'est que ce sera Khalifa Sall parce que au-delà de de yëngatu yi fi nekk yëpp à un certain moment les Sénégalais et ils commencent d'ailleurs à le faire nañ toog rendre compte ne ah ñu kat réew mi yi fi am li fi am si ay nit ñu dee li fi am si ay yëngatu li fi am sunu euh, institutions yi nu ñu lërmeloo li fi am si sunu économie li fi am si tension politique bi ñu am dañuy toog ne waa lii kan mu mun a nekk président de la république dañuy seet ku dal dañuy seet koo xam ne bu ñëwee du fayantew dañuy seet ko xamante ne xam na état yàgg na si état dañuy seet koo xamante ne yàgg naa gérer crise au au au niveau de l'état et en ce moment là le choix va être vite fait. mais il y a aucune possibilité le candidat de la majorité en en en, en cas de deuxième tour vous savez il y a il une très forte affinité entre euh, Amadou Ba ak ki nga xam ne euh, moom mooy Khalifa Sall Amadou Khalifa Sall ak Amadou Ba li ñu sekk Khalifa Sall sekk koog Diomaye Khalifa Sall sekk ko sax ak Ousmane Sonko. oui c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire mooy ne oui Amadou Ba a aussi un un un militantisme du parti socialiste daje nañu dans l'administration daje nañu fii xamante nañu et autres c'est ça que tu veux dire. non. Euh, donc en fait ce que au-delà de daje nañu au-delà de daje nañu les deux hommes dafa am euh, une une relation de longue date euh, bu leen lie bien que ils n'ont pas eu le même oui, euh, pas le, des, politique alors euh, même en termes de de de de valeur républicaine Khalifa Sall tey ku mel ni Amadou Ba nekk fonctionnaire moom la gën a déglool et puis réellement Khalifa Sall affinité bi mu am ak tradition Euh, amical nu mu bi bi mu am ak Amadou Ba amu ko ak Bassirou Diomaye par exemple. je suis d'accord avec toi on peut envisager qu'en de deuxième tour bu Khalifa bokkul Amadou Ba bokk mu mu mu soutenir ko. oui on ne peut pas l'envisager parce que Khalifa booy dem deuxième tour. non c'est ça la différence oui au leen deuxième parce que lii dëgg mooy. ay sondage bu ñu sondage yi ñuy def yëpp bu leen waxee bu leen neexee ngeen ne euh, l'échantillon a bougé. non. Euh, Euh, bu la neexee ngeen ne l'échantillon a a bougé euh, attends vous passez vous êtes en xaaral ma wax la sondage yi ñu def yi ñu fi hmm, defagum yëpp génne na ma génne ah parce que là c'est bu ñu génnee bu ñu génnee Karim mhm. peut-être que euh, ça peut ça peut ça peut ça peut bouger bu ñu génnee Karim. je sais de kan moo je sais kan moo jox sondage bi. et je sais comment non, non, on a commandé xamaloo ki ma jox sondage bi. si si si xamaloo ki ma jox sondage bi. alors les sondages yi fi am yëpp. Amadou Ba est en tête suivi de Bassirou Diomaye hmm. euh, Karim Wade hmm. euh, euh, Idrissa Khalifa Sall il est presque à la cinquième position non non je bi fi am bi am nii lii candidat non mais yow xamoo man sondage laa yor non non mais mais mais bul wax. man waxuma la lan laa yor xamuloo ban sondage la yor. loolu aussi il faut que ce soit clair mais j'explique d'ailleurs ah. benn affaire. les sondages yi fi am en tout cas yi fi sondage yu. vous êtes en euh, cinquième position. pas du tout. cinquième force politique non je te pas du tout. pas du je te dis d'ailleurs li leen njëkk a démentir demain boo leen laajee c'est d'ailleurs les gens du pouvoir qui sont les seuls aujourd'hui à avoir terminé un dernier sondage. qui vous dit que je n'ai pas ce pas que j'ai les résultats de ce sondage là. <laughs> ce pas ça. j'ai les résultats du dernier sondage ñoom ñoo fi pare parce que ce les gens dañoo enclenché benn sondage au départ il y avait pas les candidats là je veux pas citer de nom parce que envisagé wuñu le conseil a sorti. mais si non mais si man le sondage que j'ai on a envisagé. la possibilité de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. et il est dedans tudd ma sax tur je t'explique comment ça s'est passé je te y a un sondage qui est sorti bu ñu bu ñu on a mis les noms là yi fi def am na sax ñëw tudd fi ñoo xam ne sax boole mu ñëwoon si biir sondage parce que considéré ñu woon ne dañoo bokk sax ci trio de tête bi parce que quand quelqu'un fait un sondage il fait une commande la commande maintenant plus que tu élargis day gën a cher donc les dañoo rétréci woon sax affaire yi ni mu demee woon quand c'est arrivé à ce niveau là bu ñu ñëwee ba def ko bay waaj a exploiter seen données sondage Macky a pris son décret ils ont bloqué parce qu'ils ne voulaient pas payer te xamuñu fan la affaire bi di mujjee donc y a que Macky Sall moo terminé moom la Macky Sall yor balaa muy publier de am Khalifa est en quatrième position. yow jóge nga léegi cinquième. waaw yóbbu quatrième. waaw bon d' accord <laughs> dans une semaine tu nous amèneras en troisième et dans deux semaines tu nous amèneras en